mbokk yi di safoo Soleil Média ñu ngi leen nuyu dal leen ak jàmm ci seeni xibaar ayu bi yéen ci ànd ak soxna Awa xibaar yi dañ koy daal di doore ci dogal bi nga xam ni son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na ko ci li nga xam ne moo di wàññum dund bi ngir gën a yombalal askan wi euh, seenu dundin fii ci réewum Sénégal lu ci mel ni suukar si jëlee na ko ci téeméer ak fanweer maanaam cinquante yóbbu ko ci li nga xam ne mooy 600 moo di téeméer ak ñaar fukk lu ci mel ni ceeb bi nga xam ni warta rombo juróom-ñetti fukk ak ñaar moo waral mu jël ci ndogal daal ci wàññi juróom-ñetti dërëm lu ci mel ni it euh, dëwlin ji nga xam ni euh, moom lañ ëpp lu ñuy jëfandikoo fii ci réewum Sénégal moom it jël na ci ay dogal daal di tey dindi lu tolloog ñaar fukki dërëm waaye it ñëw na ci mburu mi nga xam ni euh, doon nañ ko jaayee fii ci 175 maanaam fanweer ak juróom loolu tamit dindi na ca luy tolloog ñetti dërëm maanaam léegi mi ngi koy jaay 160 francs di tolloo ak fanweer ak ñaar ginnaaw bu loolu weesoo mu ñëw ci ciment bi nga xam ni euh, ton bu nekk mënees na caa wax ni dindi na ca ñeenti téeméer loolu yëpp ngir yombal dund gi ginnaaw dogal yooyu yëpp nag jëm si wàllu dund gi ngir yombalal askanu Sénégal seen dundin ñu ngi ko jëlee ci keesu état bi di toll ci 53 milliards maanaam juróom fukki milliards ak ñett. dañuy daldi di xibaar yi si li nga xam ni nag mooy wàllu pétrole. mën nañu jàpp ni Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ni ñooy produire pétrole. loolu nag li koy firndeel mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllu woowu di biram Souleye Diop daa dinay jébbal njiitu réew mi soo son excellence Bassirou Diomaye Faye gut bu njëkk bi ki nga xam ni nag mooy njiitu réew mi daal nay delloo njukkal gouvernement bi ak ilimaan jëwriñ ji waaye dalal na xel yi rek si ni liggéey bi ko teg si loxo yu wóor yu jub ba mu mën a jaar yoon maanaam liñ naan jub jubal ak jubbanti leneen ci ay xibaar suñu réew di senegaal nekk ci wàccaay tabaski te ku wax tabaski wax wàllu jënd ak njaay rawatina xar yi ñu gis ci dara li ndakaaru ak li ko wër nemmeeku nañu fa xar yu bari lool waaye li ñu wax rekk mooy ndax prix bi dana yombe noonu ci ñu ko war jëfandikoo mbokk yi lii moo fi ruusoon ci ay xibaar di leen jaajëfal Awa Sylla moo yoroon kàddu gi kër Diop moo nekkoon ci xarala gi. di leen dig daje si yeneen i xibaar fii ak ayu bés jërë ngeen jëf.